yaa me sëñ Abdu yaay maa ngi sakku ñaan Mbàkke yaa me mbay ay da wax ko li kan Mbàkke yaa me sëñ Abdu Bali maa ngi sakku ñaan Mbàkke yaa me mbay ay da wax ko li kan Mbàkke yaa me sëñ Abdu Bali yendal ka Tuuba Mbàkke yaa me mbay ay da wax ko li kan Mbàkke sëñ Abdu Bali yeey makki sa laol wangoy day beegaat ma sabaay ma kisalool waangoy yame seyab du baali ma kisalool waangoy iye seyab du way sara ma cimñaan maake make bala aysa ma kisalool waangoy yaame xayem dinga kimale na Senghor yaame mbay ay da wax ko ni gami in bay yaame sey abuba mbay ay da wax ko ni in bay ala lay bobe borom ya juba banga yaame mbay ay da wax ko ni gami in bay yaame ala borom ya juba bangi yaame mbay ay da wax ko ni gami in bay yaame ala bobe amba jetsi sëriñ Mbakke ne na la demal jëli ay dayaande sëriñ Mbakke wax na la demal jëli ay dayaande